looloo may Seydina Ousmane yonent bi di ko ñaanal ba fajar xar soppiwul ñaan yàlla yan na nga yërëm Ousmane yàlla yan na nga jéggal Ousmane yàlla yan na nga yërëm Ousmane yàlla yan na nga jéggal Ousmane gannaaw gee ba fajar loolu du lu tuuti dañ ci ñaani doomu yonent ci yàlla mi ko bind am ci moom kersa kii ku ko bëgg a gàkkal kuy set ah kenn dootul set ci bon suuf kon nag yal nañu yàlla taas ci barke yal nañu yàlla may seeni leer yal nañu yàlla yégal seen ci seen i daraja yàlla buñ bokk mukk ci ñi leen di diina yàlla nañu doy ñi leen yónn ñi leen yónnant bi doy loo woon ñi it yàlla nañu ñu doyee noonu suñu sëriñ si fi baax si fi nekk yépp ni leen doyloo yàlla nañu leen doyloo ñun ñun am nañu roy waayu rafet suñu sëriñ yi liñ bind ci saxaaba yi kenn bindu kenn bindu ko boo demee ci Baye Niass boo demee ci Maam Borom Touba boo ci dem rek di nga bind fekk mu bind ci saxaaba yi loo xam ne ma àjjuma bi passé gis ngeen sëtam bi fi ñëwoon bi may waxtaan mu génnee li sëñ Tuubaa bind ci Seydina Omar mag ñëpp dañ fonk saxaaba yi kon ñun nañ leen ci roy te xanaa xamoo ne am na tawasul yoo xam ne boo jaarul ci saxaaba yi yàlla du la dugg ah, waaw am na tawasul eh, ñi dañuy font am na tawasul yoo xam ne boo jaarul ci doomu yonent yi yàlla du la wuyu am na tawassul yoo xam ne boo jaarul ci saxaaba yi yàlla du la wuyu am na tawassul yoo xam ne boo jaarul ci yonent yi yàlla du la wuyu ndax yàlla dafa am ay connexion yu gaaw moo tax bi aadamin wa idrisin wa yunusin wa huudin wa yunusin boo gisee mu indi foofu du foofu rek la indi lu tax mu ne bi aadamin wa idrisin wa huudin wa yunusin wa luutin wa nuuxin summa xaawin li xullati wa daawuda yaquubin suleymaana yuusufin wa isxaaqa ismaila ilyaasa junnati wa muusa wa haaruna wa ayuba wal yasaa wa zil kifli wa yaxya summa isa wasilati kazalika zakariyaun wa suaybun wa saalihun taqinaa rada daarayni min kulli waxlati gis nga min ahli baytil Mustafa jamu chamlina <laughs> min ahli baytil Mustafa jamu chamlina bi ashaabi kashfu shidaati mahibati doora indi nag bi aqma i badrin yaa ilahi wa sayyidi am na foo xam ne boo fa jaarul yàlla du la wuyu sax. yàlla yàlla du la wuyu sax am na fa gis nga ah, ñii boo leen fi bàyyee yàlla da dul wax ak yow sax danaan la demal fële. man ñi ma am mooy ñii boo leen considéré wut yëgu ma nga bëgg a xeeb naan ñooñu du leen tudd lu tax kenn du leen tudd ñooñu am barke ku bëgg barke da nga leen di tudd illa doo am barke. rasul yooyu du jaaxaan du jaaxaan yal nañu yàlla xam loo boppam rek yàlla newul fenn lu ci nit ñi booy jeex yàlla jeex ko ci biir nit ñi newul aras newul mu malakut mu ngi fii ci biir nit ñi ñi nga mel ci nit ñi la mel ci yow ñi nga toll ci nitam yi la toll ci yow ne boo koy natt asamaan rek daanu la mu ngi fii ci biir nitam yi la nekk ngay jéem asamaan di xool aras aras mooy yow kursi yu mooy yow malakut mooy yow yàllaa ngi fii wa fii anfusikum afala tubsirun yàllaa ngi fii demut fenn ni nga toll ci jaamam yi la toll ci yow ni nga mel ci jaamam yi la mel ci yow boo soree mu sori boo gàttee mu gàtt boo demut mu toog moo tax yi di wax dëgg la demoo fenn doo dem doo dem wax nañ dëgg doo dem feeg ni nga war a mel ci jàmm mi nga xam doo dem fenn waaw fenn nga dul dem ah waaw sa nuri sa nuri sa nuri sa nuri ah sa nuri mu ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu alhaq yal nañu yàlla xam loo ko yal nañu yàlla suturaal yenn ñu ngi lay sant bu baax ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci sa taxawaay ci kanu Serigne ak ci wetam dara umpuñu ci ñu ko imaam la muy saaxa wax yal yàlla suturaal ñu ñun ñëpp rek yal na ci dunya wal aaxira yàlla bu gën jooy dara yàlla bu kenn ñàkk dara cem sul bi gën a gaaw am na ci jamono période yoo xam ne ak jamono guddi bi maa ci gën a gaaw am na salaatu boo xam ne ci moom nga koy def salaatu boo xam ne ci sayyidatuna Faatima koy yooyu ñi ñi xamuñ lu xew yàlla dafa fonk ñooñu moom moo tax yéen ngi si Maodo ne wa bi wa bi ali baytil Mustafa jàmm cam ni bañ a génnee kenn ña njëkk la wax de ba ci ñi mujj jàmm cam ni na wax bi ak maari badri yaa ilaahi wa sayyidi kan mooy sayyidi mooy yonent bi yaa ilaahi yow sama borom wa sayyidi ak sama sang bi sallallahu alayhi wa sallam tawassul moo gën a gaaw ci yi ñi la ñaanee yàlla yëpp moo ci maa ngi lay ñaan ci barke jiw buy dëkk ci yow yàlla fajal xanaa kay ngay diit diital rek waaye buy dëkk ci yow rek yàlla faj parce que kooka ngay ñaan ci barkeem am na barke ci yàlla moo tax yonent bi daan wax ne tawassalu bi jaahi fa inna jaahi inda allahi azim loolu ku dul moom ñeme woo dee leen xettilikoo tey ci sama barke ak sama daraja ndax sama daraja man rasulullah ñu ah, ne lu rëy fa yàlla la ah ndëm fii ngay dem commissariat am na wala amul waaw ah, léeg-léeg nga dem sax di wéy sama sëriñ ñu bàyyi la léeg-léeg nga dem ñu xàmmee la ne la non yow jamono waaw ndëm fii lañ lay rusee nit waxuma la ak